parce que yow so jàppee ni que yow pour nga doon candidat jaral na la ñu boom ay centaines de sénégalais te seen yaay noonu durat. yow so jàppee ni wax jooju do amel sénégalais yi ak ñu ne le 22 décembre dossier wu fusillade bi mooy xeex bu amoon ci mairie Mermoz Sacré-Cœur dañ kay até. ku mu neex nag tamit taxaw ne man su ma yoon newu ci sa yoon newu ci ba bëss bu nga ci am soxla te xamna lu may wax parce que ci dëkk bi amul bés bu ma dul jóg ci dëkk bi ñit na ma meer dama bëgg a jàngi amul bés bu ma dul dox ci dëkk bi wala ma nekk bitim réew du ma jot message ne ma su ma yaay dafa feebar su ma pap su ma lii wala su ma laa donc képp ku fi taxaw nga ne su ma newu ci ndax lan parce que peut-être bokkuñu gis-gis politique wala lii wala laa su neexee nga toog tey ne su ma yoon newu ci ba ëllëg ëllëg soretul moo tax na ko ñëpp déggee nu ma ko waxee parce nag wax deug yalla man mënuma xex xex bu ngeen xam du suma xex man luma ma mën mooy artu luma ma mën mooy yëkkati suma bat ak ah, dee waay dee <laughs> ak lu ma mën peut-être moy sakku ci état bi ñu ci wat sen xel vous me permettrez tout d'abord remercier l'état du Sénégal et vous me permettrez de remercier personnellement monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal

moy andak dal waxtan te ñite leneen amu fi. le 22 décembre na ma dimbali leen te yalla tax bu len ñëw suma kër parce que fasciné wu ma dem tribunal bu len dem cour suprême amul solo. tey maa ngi toog fii mairie de Dakar buntu bi amul kat naa ku mu neex taxaw fi kaas wante dama ne ku fi rek. bay na ngay ñëw léegi Dakar comme nu gars ñëwoon ci néegi mel mu say kër ngeen xam ne ndaanaan a ngi fi ba léegi yore lay yab ko seet yabal yore seet ba xam looy gis mun daal je suis peur cour suprême maa yóbbu suma bopp kenn yóbbuwuma cour suprême maa yóbbu suma bopp ne leen luñ ma àttee ci cour d'appel d'accorduma si mais fan nañu mësee gis dëkk kilifa doon maire ñu fal ko mu nekk ci institution état ñu nekkoon ci contexte lan troisième mandat ku mu neex nag naagu ku mu neex naa fekk. su ma sañoon lii patriote yëpp war a def mooy ñu maanu si dossier bi ñu xam ne suñ temps waruñu ko perdre si Batim Dias bien vrai que ñun dañoo bàyyi Batim Dias parce que Batim Dias si moment yi nga xamante ni Ousmane Sonko dafa soxla soutien. foofu la ko Barthélémy Dias trahir dem yoonam. waaw man du ma ànd ak Barthélémy Dias du ma ko défendre ay dossier am du ma siy sama yoon ne aussi lépp problème bu mun te am ak état bi je m'en fous intéressé wante dama ne démb démb rek la woon te man fàttewu ma ku bëgg fàtte nag fàtte wante ku fi jum laa wax ba dem taxaw buntu pale mais dangay dem taxaw buntu pale yóbbu ay gànnaay lu la fay fekk di nga mere ku la deful dara. ku fi juum ne yaa ngi dem taxaw buntu préfecture wala buntu gouvernance même ñu may atte ñoom waa suprême ñoo koy dossier bi ku juum ba dem cour suprême ne da ngay wër cour suprême yor ay gànnaay lu la fa fekk yaa tooñ sa bopp man dañ ma fekk ci institution de l'état kenn fekkuma suma kër kenn fekkuma suma ken kenn kenn fekkuma ci mbedd gi dañ ma fekk ci institution de l'état mu am drapeau du Sénégal. ndeysaan mais seetlu woo leen lenn Barthélémy Dias ci boppam daa màggat ci diggante bi instant gis naa kanam gi am ay riib quoi mais comprendre leen ko nag Barth booy sikaab la day volé ba noppi di suus suus ba noppi di metti moo tax instant mu jaxase kàtt gi. bu ci des ñu ne man naa fay njabootu xale boobu te ñàkk bakkanam ma fay leen vingt millions vingt millions de ku fi dem léegi Bambilor. Waldem dem Diallo kër Ndiaylo Daman, dem Sangalkam am ci man fay millions Kep ku Sénégal di chômeur soxlawul ngay mbëkk gal. Bala millions ma jël millions SOS village des enfants wala ma jox ko empire des enfants du je ne le ferai pas na ngeen ma autant de fois que vous voulez rek je peur to check, so La justice sénégalaise. Barthélemy Diaz sera le candidat de Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous dakaar Dakar kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé le lendemain nga naan da koy convoqué moo tax ma ne ma bëgg a wax ci leer man lenn rek ma ci jaaxal Ça est ñu élection sous la ñu dal di dossier bi dossier Makissal, Sall na 12 ans 12 ans depuis 12 ans mënul le dossier Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar Barthélémy Toye Je lui disais tout à l'heure Barthélémy y ngi doxal de. <laughs> Comme disait l'autre je dirais à ton papa Jean-Paul qui lui est avec moi.

li nga xam ne àttekat àttekat bi daf ko waroon a def tey mooy procès boo xam ne tey defe naa bi mbir mi amee léegi war naa mat gën saa gàtt euh, fukki at mooy jour ba nga xam ne Barthélemy Dias mi wonañ ko ci wàllum Ndiaga Diouf mhm. muy wujj xam nga maa ngi foofu ma damaa fekke mhm. comme li ma wax lu bari damay fekke mhm. euh, euh, Ousmane Sonko jóge si te kër góor gi jël otom fekk si Barthélemy Dias këram ànd ak moom di ko gunge gaz nañ leen fi nga xam ne euh, moom mooy ci yoon bi. Mhm. gazé na leen buntu université. Mhm. ñu dévier. Mhm. ñu gazé waat leen di leen gazé ba bu bañ ne. Euh, mi ngi nii lii maa ko maa ko maa ko couvrir maa jël image ak sama téléphone lii euh, point E la ngi yaa ngi comprendre bu baax mu ànd ak moom si la Ousmane Sonko di ubbee bunt bi di wax ak policier yi da ngeen lan la may leen suñu jàmm dañuy dem ne ne Barthélémy Dias duggal comme ku ànd ak sa doom Barthélémy Dias daa dof <laughs> dof moo tax mu wor Sonko dof rek moo tax mu dem di ànd ak Macky Sall mi nga xam ne mois moo ko dese. mais dinaa leen wax nag lu tax lii yëpp am. mooy ñoom le 22 décembre la ñuy woote ñoo xam est-ce que le 22 décembre la ñuy vider ou pas. même su cour suprême confirmé lu waa cour d'appel wax man je ne bouge pas de la mairie de Dakar. waaye yow ku nga xam ne daf la jaay doole teg ci maa tey. parce que nga am 12 ans pour vider dossier bi yow saay bu ñu waxee suba mooy élection rek nga indiwaat dossier bi mais yow ça mais franchement jusqu'à quand quoi par un moment donné il faut qu'on apprenne à se respecter. da lañ naan sant mun le poste de maire de Dakar ngeen jëgal ma ci kàddu yi y a des gens qui n'attendent qu'une seule chose c'est que je perde ce poste bu leen catu mairie de Dakar bu leen ko catu la mairie de Dakar je ne bougerai pas d'ici. c'est que Barth mu ëppale Sonko lu mu perte ci mbir xamuko nak nag. non wallaahi moo ëppale lu mu perte. Sonko kay perte lépp la perte lim perte. Bart lim perte dafa rëy de dafa perte lu rëy c'est que sen amitié dafa am fu mu yegone sénégalais yi. Mhm. comprendre nga. Mhm. te sénégalais bu nek legui de yëgut ni Bart Sonko rek la def limu def mais xam nga la sénégalais yi di hmm manam yow yow mi nga xamante beggone nga amitié bobu bimu amé dafa melni yow lako def waaw mais du Sonko la def mais yow da nga japp ni yow la Bart def lii loolu motax ay mbiram compliqué ci jamono ji ñegg ni d'accord motax mané la Bart. Hmm. ñak na lo xamanteni hmm. mënatu ko am. d'accord ci dundam c'est pas possible. Hmm. mën na am nak li jaagar jaag mais gis nga limu amone xamut sax limi lim perdre. d'accord <coughs> ok bon gaay yi kon boog ñoo ko déggandoo naka ngeen batali mi jazz ak li Sadio wax aussi ci fin bi quoi s'il vous plaît dans les commentaires.